mbokk ñu déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu asbaxna wa asbax almulku lillah walhamdulillah wa laa ilaha illa allah wallahu akbar allahuma inna nasaluka xayra ma fi hada alyawm wa xayra ma bacd wa nacudu bika min sharri ma fi hada alyawm wa sharri ma bacd wa nacudu bika min cadaabin fi lqabri wa cadaabin fi nnaar mbokk yi Sud FM seen rajo ci waxtaani fajar yi mu naan defal fajar yotti waxtu wi delu si ci katunu sunu borom tabaaraka wa taala ji leen ko defal ci ñen ci ànd ak seen mbokk Alioune Sall ginnaaw ma ñu sant yàlla subhaanahu wa taala julli ci nuntu ba sallallahu alaihi wasallam ñaan jamm ci reew mi ak reew yi ko wër niñ ko baaxu ja defee fajaru samedi moy ànd ak yéen ci rihlatun ila daril akhir rihlatun ila daril akhir muy tukki bobu nga xam ne moom la ñuy ci lañu nekk ñun ñëpp ñii ngi dem ñii di waaj sunu xarit ba euh, Bachirou Diagne grand serigne de Dakar rahimahullahu bokk na ci ñu dem ci tukki bi ci fan yi nu génn waaw bokk na ci ñi dem ci tukki bi ci fan yi nu génn rixlatun ila daaril axira yal na ko yàlla yërëm xamone ngeen ko yéen nyubari wala ñu bari xamone nañ ko ci penc meek taxawayam ak ñemee wax deug te xam nim koy waxe ak boole ñaar ñu am problème ak ñoom seen yoyu mu dem ci télé ba def ci déclaration wax ca tabarakallahu mbir maa ngi noonu ñun ñi fi ñu fi mboolem ñi fi génn àdduna ci ay bés gi ñépp a ngi ci biir rek la yal na yàlla maye xol bu muñ waaye yal na yàlla yërëm aji dem bu ñu dee ay gone yal yàlla def leen ab dawal ilal jannati ñu dem ca seen maam Ibrahima mu di leen defal ay kuur di leen yar rixlatun ila daaril axira Euh, tukki boobu ñoo ngi tolloon ci ardul mahshar maanaam suuf sa nga xam ne fa la ñuy daje ëllëg fa la nu sunu borom subhaanahu wa di dajale nga xam ne ñun ñëppay dem ñun ñëpp ñu daje fa allahu akbar ñun ñëpp ñu daje fa sunu borom wax ci alquran li kulli mrin minhum yawma isin sha'nun yuxni kenn ku ne am nga looy réglé su keroogee ku ne ko yag la muy réglé waaw wujju na ko yàgg la muy réglé xadim la muy réglé moor xujja ak la muy réglé paateeg la muy réglé li kulli mrin minhum yawma isin sha'nun yughni waaw bu ñu demee ministres yeeg la ñuy réglé député yeeg la ñuy réglé chef de la ñuy réglé sëriñ yeeg la ñuy réglé taalib yeeg la ñuy réglé ustaas yeeg bilaal yi kenn ku ne li kulli mrin minhum minhum yow ma isin sha'nun yox mi ku mas a jaar àdduna rek am na loo war a régler képp ku mas a jaar àdduna rek am na loo war a régler sha'nun yox nii lu doy sëkk nga war koo régler qaala taala yowma naxshuru almuttaqiina ila arrahmani wafda wa nasuuqu almujrimiina ila jahannama wirda ndeysaan sadaqallaahu l-aziim suuratu Maryam mu ne bis ba ñuy dajale almuttaqiina ñi amoon jom ñu dajale mbooleem ñi amoon jom bu leen yàlla mësee digal ñu def ca lañu man bu yang ma masee téré ñu bayyi ñu dajalé len ñom ñu rag ñim ñu amu jëm ñepp goor ak jigen fu len ila Rahmani ci ko bëri wa wafdan ñu nek ay délégué ay délégation wa nasuqul mujrimin ñu jital ñu jital kacior ya say say ya defkat lu bon waaw fu ñu leen jëme ilaa jahannama wirda ilaa jahannama wirda mooy lan ña mar ña mar ñu mar lool bëgg fu ñu naane sunu borom waxaat subhaanahu wa taala ci ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما والسما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا الإسراء آية 97 mu ne bis bi ñu leen يوم yowmal دي ديري اي ay سين ca يا ña nga ñee nga silmaxa ñee nga tëx ñee nga luu ñu jëme leen jahannam bu ñuy dugal di dugal di dugal ba jahannama commencé giim ñu dolli ko sawara xambaat ko yàlla nañu ci yàlla musal wa fi saxiixayni an abi hurayrata yusharu nnaas ala thalaasi taraa'iq yonent bi mu ne yowmal xiyaam bu ñuy dajale nit ñi <clears throat> ci ñett lañ leen di dajale ñett raaxibiina raahibiina wasnaani ala bair wa salaasa ala bair wa arbaa ala bair wa ashra ala bair mu bu ñuy dajale nit ñi ñee nga xemme a dem ndax xam fañ jëm ñeex nga tiit ndax xam fañ jëm ñu boole ñaar ñu war giléem giléem goo xam ne ñett cay war giléem goo xam ne ñeent cay war giléem goo xam ne fukk cay war mhm. mu ne ñu ci des sa war a alawtiku leen xeeb lim jot a am Euh, ñuy fanaan a gaay ñuy yóbbu di xëy ñoom di yendoog ñoom ba baa ñu leen di yóbbu fa ñu dajale nit ñi mel ni ku fi jógewoon fii rek jëm Amérique tey dox wala nga jëm Siin tey dox da nga yendu ba tey da fanaanal ba tey te dox bi nit ñiy dox yowmal xiyaam moo gën a sori fii ak siin ñeenti téeméeri at la dox ba dox ba nag am na rawante bu nu demee màkkatal mukarama bay ñibbisi dem ci aéroport bi ñu ne ñu porte sàngam ngeen di dugge ginnaaw bi ñuy defee formalité ba noppi ñoom Cheikh Fall ak gaa yu jiitu dox boobu ñuy dox nga xam ne xaw naa tol ni Castor ak sacré kër dox boobu bu ñuy départ ñëpp ay départ waaye nga gis léeg-léeg ñu roppante rek li tax ñu roppante foofu problème mu bagage la nga gis koo xam ne kii bagaas bi mu yor matul juróomi kilo gis koo xam ne que bagaar bagaas bi ñor mat na fanweeri kilo ci diggante bi léegi nag ki yor bagaas bu woyof waaxoom day woyof jëm ca porte booba ki yor bagaas bu diis bi tuuti lay dox bëgg a noppalu doxaa tuuti bëgg a noppalu léeg-léeg nit romb ko mu ne ko doomu jàppale nga ne déedéet léeg-léeg nit romb ko doomu dimbale nga ne déedéet bu dee ci àdduna si bu ko dimbalewut dana la xas dana la xas diw di def maa romb ma yor bagage yu diis jàppaliwu ma dana la xas donte moom moo nekkul ci dëgg du la xas waaye bu dee yomal xiyaam du la mën a xas bagage yu bari yomal xiyaam moo tax alxuraan naan wa tabattal ilayi tabatiila wàññi leen bagage yi ndax dox bi woyof bagage yi àdduna nag mooy bëgg-bëgg yeeg tiituru beeg daraje bëgg càcc geeg yu baaxul yeeg yëpp ay bagages lay doon gaa yi gàddu ko rek tabarkàlla yoon mi sori lool yàlla na ci yàlla musal wa fi saxiixayni an aysata radiallahu anha qaalat qaala rasulullah tuhcharuuna xufaatan curaatan xurla mu ne danañu leen dajale yowmal xiyaam ngeen nekk ñu def tànku neen Eh, yaramu neen ba noppi nekkaat nañ ma baal ci baat bi ay aat waaw xaalat Aïcha fa qultu ya rasulallah arijaalu wa nisaa yanzuru baaduhum ila baad góor ñi jigéen ñépp kenn du sol kenn ku ne xool sa morom yonente ba ne Aysa al amru ashaddu min an yuhimmahum dalik mu ne mbir mi gën naa métti ci xoolante di leen di leen yitteel xoolante du leen yitteel li kulli imri'in minhum yawma isin sha'nun yuxni ca suuratu Abasa aaya 37 ku ci nekk am nga loolu doy sëkk loo xam ne dana dox sa digganteeg di xool di xool xam na yoo xam ne bu xewee ku ne dana tal leneen lu may xool accident yi rek bu xewee boo fa ñëwee nit ñi danañ tal ay xool ak ñoom seen yooyu ñu baree bari ñu seen xol bokk ci kàllaa barraana ala xulubihim nag ñoom mën nañoo fekkeb accident di sàcc waaw mën nañoo fekkeb accident di sàcc di sàcc ci bagages yi blessé yi waaw allahu akbar parce que ñoom raana ala xulubihim ma kaanu yaksibun wa naxshuruhum yowma alqiyaamati ala wujuhihim sayxayni xataada nee na anas nee na jenn waaye dafa ne yaa alkaafiru ala wajhihi ki weddi yàlla nuñ koy fange ci xarkanamam mu ne alaysa ala rajlayni fi dunya xaajiran ala an yumsiyahu ala wajhihi yawmal qiyaama mu ne ki doxloo ñaari tànkam yi xanaa munta doxloo xar kanam bi mu ne akay ah mu ne ko mu ngoog bala wa izzati rabbina wa naxshuruhum yawma alqiyaamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa mawaahum jahannam kullama qabat zidnaahum saira waaw ma tax mu si ne ndeysaan nit di fecc ba mu yàgg mu daal di aj tànk ya di doxe loxo ya rekk tabarkàlla ma zappe <laughs> ma ma jël beneen seen ndax li muy def moom euh, ndeysaan ardul mahshar ardul mahshar mooy suuf sa nga xam ne fa la nit ñi dajee ëllëg suuf soosu amuli garab amuli montagne amuli tabax benn tribunal spécial la ba sunu borom subhaanahu wa taala di di samp yusharu nnaas yowma alqiyaama ala ardin bayda ka xursatin na naqa laysa fiha maalamun li ahad axrajahu albuxaari wa muslim an sahl bnu saad ba dama ci sayhul jami mu ne suuf sañ ñuy dajale nit ñi yamal xiyam day weex tal tal tal amul ben ben menn màndarga mu ñi wax ne nangama nga ne tribunal bopam la bu sunu borom samp fas ci yene attee nit ñi waaw suñu kër yi fi lañ koy bayyi terrasse étage yépp ngoog dem ca tribunalam boobee moom subhaanahu wa taala buñ fa layoo yàlla nañ yey buñ fa ye buñ nañ yey mu ngoog buñ fa buñ fa layoo yàlla nañ yey euh, al imaan wala boog dem na ca shubul imaan ci taarixul bay amr ibnu maymun Jadi ci Abdullah ibn mune bamuy jang yawma tubaddalul ardu ghayra al ardi al aya yawma tubaddalul ardu ghayra al ardi bis bañu remplacer souf si senen souf su bokut ak mom mune tubaddalul ardu ardan ka annaha al fidda dañuy dañuy remplacer souf si senen souf souf so xamne khalis bi jigen ñi tak ni mu mel suuf soosu nun lay mel suuf soosu deret mosu cee tuuru deret mosu cee tuuru suuf soosu kenn mosu cee def bàkkaar hadis boobu rijaaluhu rijaalun saxiix ngoog wa qaala sallallaahu alayhi wa sallam takun ardu yawma alxiyaama xubza waaxida yatakafa'uha aljabbaar biyadihi kama yatakafa ahaduhum xubzatahu fi safar nuzulan li ahli aljanna ngok akhrajul bukhari wa muslim mune yowmal khiyam suuf si ñu nekk suuf day mel ni e, ngubub fëriñ boo xam ne sunu borom subhanahu wa taala moo koy ngëb ca loxoom mu yem ca mel kuy tukki ni ngay ngëbe sa mburu boo demee nga jox ko ña koy jox moom tam mu nga mburu mi suuf si mel ni e, ak nganale bu waa aljanna war a am fan la fan la suuf suuf su nekk fan la suuf suuf su nekk dëkk na ci ay ahadis yu wér yonent ba wax ne suuf soosu mooy ardu shaam ardu shaam waaw ngoog آه، الإمام أحمد بن حكيم بن مهاوية البهزي عن أبيه من دنجان وقت عن بجم تلول من هؤنا تحشرون هؤنا تحشرون هاهنا تحشرون ركبانا ومشاة وعلى وجوههم قال ابن أبي بكر فعسر بيده إلى الشام فقال إلى هاهنا تحشرون nee na yonente bi alayhi salaatu salaam ba muy joxoñ tribunal boobu sunu borom war a taxawal tribunal ba nee na ma ngay nekk Shaam waaw ma ngay nekk Shaam mu ne mu ne fee fee lañ leen di dajalee fee lañ leen di dajalee fee lañ leen di dajalee ñii di dox ñii war ñii ñu këpp seen xarkanam yi boobu dalil la ci beneen dalil bi ñu ngi ko jëlee ci Tirmizi an Bahz ibnu Hakim an abihi an jaddihi qaala qultu ya rasulallah ayna ta'muruni qaala haa huna wa nahaa bi yadihi nahwa Shaam mu ne ko fële daal di joxañ côté Shaam ngoog Tirmizi ibnu Hajar tabarakallah mu ngoog ñaar yooyu tegtal la ci ne tribunal ba bi ñuy dajalee nit ñi warle na a ci ardu Shaam lay nekk waaw réew yële ca sunu penku tubaarkalla boroom xam-xam yi daan ni lu tax ñu bëgg ñu dajale ci ardu Shaam lu tax ah bi ñu ko ton bi ñu ko laajee tontu li ñëw ci lisaanul imaamul muhaddis aljalil ibnu hajar rahimahullah moo ca tontu woon nit ña ci tafsir ibnu ayniya an ibnu abbasin man shakka an al mahshar haahuna fal yaqra awala surat al hasr mu ne ko am sikki sàkka ci ne fii la ñuy dajaleeg du fii jàngal suratul xasri qaala lahum rasulullahi yowma isin axrujoo xaalu ila ayna qaala ila ardil mahshar تفسير ابن كثير فتح الباري من سبب بنك كين يدف كشام تربينا البا من هي أن أرض الأرض المحشري أن الأمن والإيمان حين تقوى الفتن في آخر الزمان يكون بالشام من بكر السبب مودي كولو تيك سكريتي bu fitna amé ma ngay am ca fitna ya ngay am ci mujjug jamono ca Sham nga ba demé ci at-Targhib yonent bi mun raaytu laylatan usriya bi amudan abyad ka liwahun tahmiluhu taxmiluhu almalaayika fa qultu ma tahmilun qalu umud alkitab, umirna an bi bishaam rawaahu ahmad wa qaal ibnu xajar sanaduhu saxiihun demal ci fatahul baari yonent bi nee na dañ koo won guddi gi mu rañaanee guddi giñ ko rañaanee benn pied bu gudd bu weex bu def ab drapeau malaaka ya gàddu ko di ko sampi mooy leen li ngeen ŋàbb fu ngeen lum doon ñu ko lii de ab kenn la boo xam ne bii mooy umadul kitaab registre bi yàllay attee nit ñi ci lañ koy teg dañoo digal nag ñu dem saam samp ko fa dañoo digal ñu dem saam samp ko fa skey waxaala aleykum bi saam fa innaha safwatu bilaadillah waaw mu ne dénk naa leen ngeen dëkki saam ndax réewum tànneef la ci réewu yàlla yi yuskinuha xayratahu min xalqihi dafay dëkkal tànneefam yi ci mbindeefam yi mu ngoog mu ne koo ci xam ne gàntu nga nag koo xam ne gàntu nga maral sa sa loxo te xam ne yàlla subhaanahu wa taala te kafala lii bicham wa ahlihi te xam ne ña ca saam te dëkk fa duñ maraatu seeni loxo ndax ñoom yàlla moo leen yoral seen dund ak seen ñoñ waaw atabaraani fil kabir an waa ila eh, jaami mu ngoog wadaa sallallahu alayhi wa sallam li shaam bil baraka yonente ba ñaanal na waa shaam barke jële ko ci ibnu omar radiallahu anhu mu ne allahuma barik lana fi shaamina allahuma barik lana fi yamanina mu ne yàlla ñoo ngi lay ñaan yàlla na nga barkeel ci saam yàlla na nga barkeel ci yaman moo tax at yii nu nekk bi coow li amee ci e, dëkk yooyu ñu bëgg a wàcc buur e, njiit la mu ne du wàcc coow la na kur ñi dugg ci téere yii di gis yii am nañ cim tiit lool ndax wa taqaw الفتنة في آخر الزمان يكون بالشام حين تقع الفتنة في آخر الزمان يكون بالشام ngoog te it gisoon nañ ci téere yi ne nuzulu isa alayhi salaam fi axir zaman yakunu bi shaam wàccu isa alayhi salaam ca saam lay nekk wa bihi yakunu ijtimaul muminina li qitaali dajjal ngoog rixlatun ila daari al axira يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات ثوبان نانا ثوبان نينا دفعن بين بس من شيء تبع عليه الصلاة والسلام بن لب بشي يهودي نيوفا مانام بن برام خام خام جي يهودي نيوفا نكو السلام عليك يا محمد من ينتك موم فقال اليهودي ayna yakunu yawma tubad ayna yakunu naasu yawma tubadlu ardu xayra ardi wa samawaat yonent bi loolu la ko yahud ba laaj bu yàlla changé suuf sii seneen suuf ak asamaan si fu nit ñi nekk mu ne ko hum fi zulma doonal jisr ci lëndëm la ñuy nekk ndax yéegaguñ yéegaguñ siraat ci lëndëm lañuy nekk euh, avant ngay àgg siraat wa an aïcha radiallahu anha suila suila rasulullahi yowma tubadilul ardu xeyra al ardi fa ayna yakunu naasu yowma isin qaala ala siraat booba nit ñëpp dañuy nekk ci kaw siraat ñu changé ko gisula bu ñuy changé mbubbam kaaba gi nit ñëpp dañuy nekk ca arafa ñu changé ko seen ginnaaw parce que ibnu abbas mu ne ak masud tubadilul ardu ardan suuf sii seneen suuf lañ fi indi soo xam ne bokkut ak sii suuf soo see seet wecc weex tal waaw rafet lool kenn musu fee musu cee tuur deret mbaa nga fi def la ñuy tere tabarakal wa bidalika naarifu an annabiya qad axbara an alwaqt allati yatimu fihi hada altabdil huwa waqtu murur naasi ala siraati aw qabla salika bi qalil buñ jàngee hadis bii weesu yonente bi kon mu wax ne bu ñuy dajale nit ñi ak di leen fang day fekk nit ñi ña nga ca siraat romb nañu ba noppi mbaa ñi ngi bëgg jub di bëgg romb ñu daal di walbati ñu daal di changer suuf si nag dindi suuf si indi fi seneen suuf loolu nag ni muy yombe sunu borom mi ngi mel ni ko lalu basan lalli ko lal geneen rek besu nu ni mu yombe sunu borom mi ngi mel ni ku am ay gan ñu toog ci basang jóg di julli ji tisbaar nga laal li basang nga laalaat geneen nun képp la yombe sunu borom subhaanahu wa taala jërë ngeen jëf waxtaan wi jeexut dañu ak si war yëkkate jataay bi ndax suñu mbokk yi xëy ci xibaar yi ñu ngi ni tax yor seen i këyit bëgg leen fi ñu fàncal xibaar yi ci tubaab ñu fàncal ko ci wolof ñaan leen yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bii yàlla na yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir def ci suñuy poos dara ñaan da loon ci waxtaan moo di seen mbokk Alioune Sall in uridu illa al islaaha ma stataatu وما توفيقي إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته